Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. Nous, de besoin de recasement une patriote jiite ko muy maa kum mi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar au nom de Mojib Kër Massar Nord en collaboration avec jigéenu Kër Massar les femmes battantes jigéen ñu mën góor jàmbaaru jigéen ñi liggéey rek lañ xam ma ànd ak liggéey bi nag sama sœur une patriote madame Samb Maro di secrétaire générale Mojib Kër Massar Nord asalaamaaleykum eh, eh, eh, sama mbokku jigéen ñi asalaamaaleykum sama mbokku jigéen ñi asalaamaaleykum suñu càmmiñ yi fi teew yépp ñi ngi leen di nuyu di leen ziar bu wér di rafet lu vraiment seen teewaay ci bis bi parce que ñëpp xam na ni jot amul waaw dama bëgg damay commencer nuyoo seen euh, maire bi mi nga xam ni mooy premier adjoint au maire de Kër Massar Nord di dugg si donc euh, ñu koy accueillir di ko souhaiter la bienvenue ci jataay bi nga xam ni Mojib moo ko ootee du ñu def lu dul di leen dalal te di leen jaajëfal aussi ci seen teewaay di jaajëfal nag jigéen ñi parce que tey jigéen ñee jigéen ñee woote mais jigéen ñee wuy si aussi te lii wane na ni tey jigéen xam na place lii wane na ni tey jigéen xam na valeur wane na jigéen xam na taxawaayam muy loo xamante ni non seulement dañ koy rafetlu mais dafay kawe loolu ci ñun ndax lu ñu yàgg daw la lu ñu yàgg bëgg la lu ñu yàgg wut la kon tey bu jigéen amee prise de conscience bu toll liggéey liggéey bu rafet bii nga xamante ne ñun ñëpp mën nañ ci teg suñu bët ndax lu ni fàng kenn du ko jeex kon jigéen ñi tàcc leen seen bopp donc on va pas tarder parce que ñu fi nekkee moom jigéen mën nañ fi fanaan mbaa ñu yendu fi di wax ci jigéen ak yu baaxam damay jox nday mbend rek ñu dugg ci programme bi euh, jéem ci développer parce que tey am nañu débat boo xamante ni wax dëgg yàlla c'est tellement intéressant dina ñu tënk bu baax li ñuy wax pour que débat bi ñu mën ci xuusa ba xuusali lu bare bare nday mbend effectivement ma sœur Maro li duuf ci nag bi xajul ci cin li ndax bu ñu naree étaler li jigéen mën kon fii la ñuy fanaan kon nag dañuy daal dugg ci programme bi niñ ciy duggee nag mooy comme toute activité dafa am mise en place te defe naa def nañ ko ba pare bu loolu weesoo dañuy jox kàddu gi kii dalal gan yi muy présidente Mojib Noor Ramatoulaye Ndoom mu def un mot de bienvenue. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam di leen ziar man la Ramatoulaye Ndoom présidente Mojib Noor maa ngi nuyu képp kuy jigéen. di nuyu première adjointe maire Rabi maa ngi leen nuyu ak délégation bi nga ànd ak di la sargal ci bésu jigéen di nuyu directeur cabinet maire ak délégation bi mu ànd ak di nuyu bépp jigéen di leen sargal ci mois de mars bi ku ne mars rek xam nga ne weeru jigéen la kon yéen gàcce ngalaam maa ngi leen di sargal ci weeru mars bi di leen ziar yéen ñëpp di nuyu présidente GIE yi fi nekk yëpp leen wax tey nag vraiment dañoo kontaan. tey dañoo kontaan ndax yàgg nañoo organiser ñun mojub bi mooy suñu huitième édition mais journée bu dawmee nii ñu ngi koy soogaam kon macha allah jigéen ñi félicitation di kontaan ci yéen ñëpp nag di nuyu waa mojub yëpp nag bàyyiwuma kenn di leen wax félicitation kontaan nañ ci liggéey bu rafet bi ngeen def di bañ a guddal nag di bañ a yàggal ndax temps bi dafa gàtt dafa am leneen lu ñu war maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen sargalaat ci seen weer yéen jigéen ñi jërëjëf. rafetlu lool comme ni ko waxee rek mu ngi gërëm képp ku bokk Moju ndax nag doole mooy liggéey doole weesoo nag dafa am ay GIE yu fi nekk. balaa ñoo dem ci suñu conférencier bi ñu présenter GIE yi doog a mën a jox monsieur Simon Sonko parce que tey dañoo am thème bu am solo muy lentre l'entrepreneuriat féminin. Euh, wax ji leer na te wane na boppam parce que li nga fi lim yëpp ay jigéen a ko taxawal ñoo ko sanc ñoo tàggat seeni ay moroomu jigéen ba ñu mën fi exposé tey produit yi ñuy présenté kon tey euh, xam na ni jigéen. non seulement xam na fi mu war a taxaw mais xam na aussi fi mu bëgg a dem en termes de développement mais sans plus tarder on va donner à chaque présidente de GIE mu présenter son GIE euh, son GIE mu présenter ko ba pare wax li sabab GIE boobu ci nan lañ ko sance ak lan lañ ciy def ak fan lañ ci bëgg a àgg présenter aussi ses produits mais comme niñ koy waxee temps bi mayuñu ko trop il faut que quelqu'un ku nga essayer sa présentation ci trois minutes donc on va donner la parole à madame euh, Madenia pour présenter son GIE et ses produits. Je suis nuyu ñëpp di sargal ñëpp di rafetlu teewaay bi maa ngi délégation monsieur le maire ak cabinet du maire maa ngi nuyu sunu mbokk patriote yépp ak képp kuy jigéen mouvement de femme bu nekk fii ci Kër Massar waaw man la Mada Niang présidente GIE FEPET GIE FEPET nag FEPET li muy signifié mooy femme patriote pour le développement pour l'entrepreneuriat et le développement GIE FEPET mi ngi jóge ci cellule pastef bu ñu créer woon fii si unité cinq ñu bañ cellule bi nekk cellule dormante moo tax ñu créé GIE pour mën di liggéey li ñu focaliser wu nag mooy transformation des produits locaux comme que quelque chose la bu nga xam ni c'est très accessible ay produits la nga xam ni ñun chaque fois si dëkk bi lañ koy bayee accessible na yomb na te mën nañ si jëriñu njariñam bëri na moo tax ñu focaliser wu si sa domaine bëri na nag produit yi ñuy def mais comme que affaire yi dafa xatoon moo tax ñu def quelques heures rek premièrement ñi ngi présenter suñu produit bii di coco gingembre gingembre ku nekk ku ko xam rek xam nga vertu bi gingembre am coco la même chose tamit te amuse-bouche la de euh, dafa baax si ballonnement baax si si problème gastrique moo tax li li jëm si gingembre ak koko bi defar nañ si tamit pasti gingembre ay pasti la kii boo lekkee mën da koy jënd rek dugal sa saak soo demee fenn soo lekkee bëgg gaaw a digérer génnee benn sàqam gi dégg jaamu bii nii tomate la sunu tomate njëmb bii ñu am benn euh, légumes yi ñu am fii ak fruits day ñëw par saison te parfois day yomb lol si marché bi mais amuñu méthode de conservation bi mais bo jëlé tamaate ñam bi nga transformer ko def ko ci say pot mën ko conserver pendant six mois bo démé ba gissato tamaté mën nga ko utiliser bi marmelade de tamarin la dakar dakar bi lañu jël ni defal ci sunu sirop biñu paré jël li ci des def ko marmelade marmelade nak mën nañ ko woowee confiture instant bi boo jëlee sa pain pour ndekki nii mën nga ko def dafa neex bu fekkee tamit danga dem ba daxaar bi changé na couleur amatul day ñuul kukk du neex a utiliser mën nga jël bii booy defar sa ay macaat sa ay xam nuñ koy ti affaire boobu ñambaan bi waaw nga daal di ko ciy def tibb rek def ci bii moom kii la macédoine de légumes ku ne xam na ni carotte day dem ba benn moment muy jar ay kilo 800 wala ay kilo 1000 francs te moment yi mi ngi nekk di jar kilo 300 francs boo ko jëndee nii jënd sa bocal toog ba ba nga xam ne gisatoo carotte wala gisatoo haricot vert nga am sa xew wala nga am sa ay gan bëgg defar orne ba mu nice boo bu fekkoon nga garder say pot dangay ngay génnee rek def si on peut le conserver aussi pas au frais mais da nga koy jënd nii rek teg aj ko quelque part heure boo soxlaa léegi nag euh, ci lool lool tënk rek pour tënk xam naa 3 minutes yi romb na pour ñu mën a may ñeneen ñi ñu ñu mën a présenter seen produit. ngeen ko teeloon wax <laughs> bu ngeen ñëwee daa ngeen fi toj. effectivement euh, defe naa présenter nga ay produits yu naturel ay produits yu baax ci njaboot te comme actuellement moom femme yëpp ay entrepreneur lañ dañuy xëy di dóor rek. kon nag bu ñu ñëwee rek lii day yomb ci ñun pour ñu mën a toppatoo kër gi it. Femme Mojib responsable cellule unité 10 euh, di présidente GIE maa ngi koo liggéey unité 10 maa ngi présenté suñu produit ak bien bienfaits di leen présenté aussi tomate tomate concentré bi ni ko sama sœur Maada waxee léeg-léeg boo bëree ci marché bi mun nga ko jël rek conserver ko bu tamaatee jeexee mën nga ko utiliser après voilà loolu moo nekkoon sama produit te defaraat yeneen produit encore bu mel ni jus betterave aussi dañ koy defar voilà. ka jariñu bu Kër Massar centre polyvalent ba lañ nekkee GIE bi nag programme bi teeluñu ko yëg démb lañ ko yëg moo tax ñu ñëw présenté wu fii GIE bi mu ngi présenté ay sirop bi sirop di tax la suro naturel la mën na nekk mën nañ ko conserver un an sans frigo day nekk un an sans frigo ma indi ay boisson di tax buy bisaab ma indi tamit comme suñ ne GIE GIE fruits et légumes transformation fruits et légumes ma indi fii araw araw baa ngi ni buddi ji bi araw laax araw fonde pour tey boo comme ñun rek jigéen ñi di nga toll sa foyer fi nga xam ne boo wàccee dinga nga bëgg a préparer sa kër doo sonn bu dee laax nga bëgg wala fonde da nga koy def facilement ñu ñëw tam suñu jours de maïs brisure maïs ku xam maïs ñun foofu GIE bi maïs bi dañ koy toggu ceeb mën nañ koo togg ñànkatan ndax ceeb ñu ci bëri non parfumé bi parfumé bi préféré wuñ ko mais am na ñi nga xam tamit ceeb da leen di sonal dañu ci togg ceeb cere bi tam dañ ciy togg di ci def lu ñu neex togg ko lii ñebe en poudre la moo nekk nii dinañ koy présenté ku xam bien fait ñebe lu muy def ci yaramu nit ak ci xale moo tax ñu présenté leen ko présenté leen tamit sankal sankal brise sankal mu waaw noonu la tooloon de suma juumul ak suñu caagir yi ak cere beeg yëpp waaw ñu xam ne même céréale ba tamit dañuy defar euh, mooy ñebe bi mooy ñebe moo nekk nii céréale ba tamit dañ fay defar foofu ay savon savon liquide yëpp dañ ko fay defar mais nag comme sa démb laa yëg affaire yi moo tax dama jël quelque foofu rek yi nga xam ne dafaa nekkoon ma yëkkati ko indi loola tax merci gi maire bi naan dañu war a bàyyi di ndekkee Brésil añee France reere ji Dubaï tey loolu war na mën a nekk ak produit yi lii fi tege yépp ñun mën nañ koy dundee te tey bu ñu nee dañu bëgg a suqali suñu koom-koomu réew tey ñun ñoo war a njëkk li charité bien ordonnée commence par soi-même ñun ñoo war a njëkk dooleel GIE yi te dooleel bi mooy jënd seen ay produits consommer ko ñun ba pare nekk le représentant un peu partout fu ñu mun munti dem taxaw jaayal leen fa seen produit bu ko defee ñoom dinañu suqaliku mais beneen jigéen bu ko gis dina ci roy ba mën a taxawal leneen lu dul lii mën ci yokk boppam mën ci yokk société bi. kenn xam na ne lii nekk ci table yi bu ñu ko jëlee l'exemple euh, Macédoine bi rek d'ici deux mois. inshallah allah lëgum dootul amati bu fekkente ni si am nga ko sa kër def ko sa frigo bo amee dépense baax na soo amul dépense da gën def sa crudité jël sa salaire 200 cent ba sa pomme de terre am nga salaire ordinaire nga defar rien kon xam nga lool baax li ci dess yëpp comme ñu demee rek ñu sant ci yalla <laughs> alors kontaan da lañ def di leen wax jërëjëf macha allah. elles sont très conscientes que mënul développer. sans que jigéen ñi taxaw ñoom ñu jóg organiser seen bopp en GIE di former seen bopp ba mën a tey présenter produit yi ñu am yëpp. Euh, merci beaucoup madame Sambou Maro euh, kon nag dañ leen di nuyu di leen ziar di leen dalal parce que lii yombul comme ko waxee sànq woote ñu wuyu si la dafa jafe te tey nag yaakaar naa ne dañoo boole njiitu Kër Massar yi ñu ñëw wuyu si ñoom parce que président Kër Massar Sud toog. kon ñun waa Mojib kontaan nañ ci yéen di leen ñaanal nag yéen bi leen population bi sas yal na ngeen ko mottali dañ na nag jigle tàngaay danga ciy jiitu ñun waa Mojib nag ñoo ubbi baal bi exposé ba pare yaatal sunu naataangoo yi ñu ñëw fekk ñu ci kon nag yaakaar naa ne du ñu def lu dul yeggale déroulé sunu programme parce que nag tey am na lu ñuy xaar de ci entrepreneuriat féminin la ñu jëm gàcce ngaalaama jigéen ñi. Euh, sunu euh, kilifa yi toog euh, fekku leen fi mais produit yi ñu présenté bare na. parce que présenté nañu des produits à base de légumes muy macédoine bi ñu défar nga xamante ni jigéen ñi mën nañ ko conserver pendant une bonne période ba légumes ñàkk ñu ñëw utiliser que mu nekk loo xamante ni dina leen jàppale mais aussi dina jàppale borom kër yi ci biir kër yi mu wëlbatiku présenter aussi des produits yoo xamante ni mooy li ma leen wax léegi dafa am des vertus thérapeutiques boo jëlee jinjeer day faj nga jël euh, nebadaay day faj nga jël beneen produit bi nu mu tuddati daxaar bi le tamarin day faj Dakar boobu moom na ngeen ma ci may benn pot mu yóbbaale <laughs> boo jëlee ñebe bi pareil produit yi ñu fi présenté yëpp et dafa wane ni tey les femmes on très bien compris que le développement. passe par la consommation des produits locaux. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole parce que tamit on euh, devait démarrer le débat mais sima il faut que ñu tout dit parce que si nous ay kilifa ñëwee il faut que nous jox aussi des cadeaux. dalal leen nous sànn aussi des cadeaux. donc on va donner tout de suite la parole euh, à M. le maire de Kermassar Massar Sud moom aussi mu am monsieur Bilal Diata. bon ñoo lay dalal di leen nuyu di la jox cër sa wàccuwaay su ma paree ci Babacar ma nuyu beneen jantal maire jantal maire boo xamante ni nag sama copain la kooku moom yaakaar naa nan la tudd oh, yéen comprendre ngeen moo ngi tudd le grand maire Adama Sarr ngeen jàppale ko bu baax parce que dafa am bu rëy bu am ci commune bi en réalité man Pastef laa bokk le président Ousmane Sonko mooy sama leader na leer projet Pastef laa gëm le président Ousmane Sonko laa gëm am ma benn complexe benn leader ci àdduna bi ndax ki ma am moom moo je pense que mooy mooy leader bi fi nekk ca eh, jamono moom gën a Poutine moom gën a ku fi nekk ci àdduna bi mooy le problème noonu na leer waaye nag ci kaw loolu dañu am benn principe bu ñuy demee ak ay valeurs yu ñuy demee muy coalition coalition bi. dama leen na sant yéen jigéen ñi ba nga xamante ni aw ma sax sant fan la yem xam nga lu tax ñu bëree bëree bëri leen sous-estimé woon di leen caricaturé jox ay humiliation amul fenn naa leen di nga jël sa cinquième ngeen gis ay ministres ñëw fii di dépense xaalis bu dul jeex mais malgré tout ça yéen jigéen ñi fi nekk nii tey di jigéen ñi askan bi ngeen am lu gën a jox jamono muy la dignité humaine te dignité humaine boobu moom laa leen fonkee moom laa leen gëmee.

moo tax man ma jël ay engagement fii yu leer yu solide ni lii bu ngeen bëggee Babacar rek nii toog sama grand la mën nañ leen defal bitigu département fii xam lii si département bi ngeen koy jaayee ku soxla produit bi ñëw ci ko ci bitigu département bi bu grand bi yéexee def ma wax Aara Massar def ko Kër Massar Nord bu ko yéexee def ma jël ngandam magasin def ko Kër Massar Sud loolu c'est ay responsabilité yu may jël la yeneen yi waaj a jóg sax seen xel war na dal ndax wane na ni seen maire sunu maire yi ils ont tout compris xam nañ li ñu bëgg te xam nañu fi ñu bëgg a dem et j'ai l'impression qu'ils l'ont anticipé donc merci beaucoup monsieur le maire Bilal Diatta euh, di jox parole bi sans plus tarder à monsieur le maire de la commune de Kër Massar Nord Adama Sarr ah, <laughs> salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu bu baax a baax a baax avant may nuyu président ak le maire Bilal jigéen yi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk tey li tax ñuy commencé si yéen mooy seen mois la mois de mars jigéen yee ko moom donte bés yëpp ci àdduna bi si si at bi bésu jigéen ñi la. mais weer bi nañ leen ko jagleel donc euh, dama leen di souhaiter une fois de plus un bon mois de mars une bonne fête ngeen xam ni mois bi li gars yi di wax rek yéenay bañ loo leen joxoñ dañuy dagg waaw ba mois bi jeex di wax ni rek euh, lii dañ koy rafetlu parce que réew bu moom boppam rek daa fekk lépp li ngay lekk war na fa mën a jóge tey jii li nga xamante ne si dañ koy importer dëkk yi koy importer buñ tëjoon seeni bunt xiif am ci dëkk bi te réew buñ nee développé na mooy lépp li nga xamante ne si askan wi fa dëkk ñoo koy béy di ko jëfandikoo. dem ba am lu ñuy wax suffisance alimentaire loolu mooy tax ñu ne réew mi mënal na boppam tey Pakistan bu tëjoon ay e buntam wala Indonésie wala Thaïlande kon yaakaar naa ni Sénégal dina métti parce que tàmm nañ ceeb di wax ni peut-être lii c'est une première mais bëgg nañ ëllëg wala si fan yii di ñëw ngeen def fi foire bu mag. bo xamante dañuy jël espace bi ni yëpp def foire bo xam mën na dem ba une semaine ñëpp di présenter seen produit yi fu way jugee même au-delà des frontières de Kër Massar ñëw njënd ñëw dem donc loolu commencé leen ci liggéey kuma leen ci xalaat comme ça ñu xool naka nañ leen di jàppalee avec l'appui du président Babacar Gueye doon aussi sunu kilifa si département bi doon ku baax man mun naa leen garantir ne. dinañ def lepp pour lool nonu am man personnellement mën naa jël garantie boobu si moom ni ma ko mënee jël si la maire Bilay Diatta waxatuma nag ak sama bopp donc euh, fête bi rafet na produit yi man dèjà maa ngi doon commencé di lekk <laughs> ma doon joxu mi li ma si gën a neex nag mooy cere bi <laughs> waaw <laughs> cere bi moom bu ma si gën a neex parce que da ngay def sa kër boo xiifee rek tàngal ndox sotti waaw man cere bi si gën a neex di wax ne rek bés bi rafet na ñoo ngi gërëm jigéen yëpp yi fi teew di wax ni rek mairie yi en tout cas taxaw nañu pour jàppale leen di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di wax ni ñoo ngi seen ginnaaw joxañ leen rek ñu dagg. donc donc jigéen ñi yaakaar naa ni Mbenda jigéen ñi amati nañu sas. sunu ay mair sasati nañ ñu ñi ngi doon présenté ay produits di xalaat ay boutique mbagg marchand ambulant ñun ñoom ñu yë yéege ñu high level donc tey Mbenda ah dama ne loolu am na solo xel dal na dama ne bu fi yemoon sax mu neex ndax li ñu dégg à travers le deux maires neex na ba noppi dolli cere yokk ñeex yéen jigéen ñi jogoon ngeen de. waaye yokku leen seen laxasaay ndax fajar ngeen di xëy di tëdd guddi ngelawaay yéen yokku leen. GIE ma leen di ñaax ku ci jot am kayit na ko wuti waaw ndax nag boo leen amee kayit wala mën a am frappe di exposer seeni produit fu mu leen neex bu boobaa foire bi day daal di ala daw mi rek. merci beaucoup nday mbenn li nga wax noonu dafa am solo foire national bi day am Kër Massar ñu ànd ak sunu ay maire de foire internationale génn Kër Massar jigéen ñi taxaw représenter seen donc sans plus tarder euh, nous allons donner la parole à monsieur le président du conseil départemental Babacar Gueye ñi ngi nag di rafetlu teewaayu monsieur Barro di adjoint au maire à Kër Massar Sud maître Momar Diop aussi mi ngi di directeur de cabinet bu le président président Babacar Gueye ma ni tey ñun dañu am chance parce que lii tol nii rassembler leen yombul et tout Kër Massar est là tout Kër Massar est là donc jigéen ñi jóg leen te taxawal projet yi parce que ñi nga xamante ni ñooy doxal projet yi ñi ngi nii toog donc nous allons donner la parole à monsieur le président. merci ñu ngi leen di nuyu di am mbégte teew fii. di nuyu monsieur le maire Adama Sar, le maire de la commune de Kermassar Nord et eh, monsieur le maire de la commune de Kermassar Sud Mohamed Bilal Diata. di nuyu responsable yi ñu fi fekk yépp ku lim juum ay kilifa rek ñoo fi tew. ñi ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu jigéen ñi surtout ñi nga xam ne ñoo waral bis bi xam naa samay kàddu du bari ay kàddu la yoo xam ne mënul ñàkk mais en réalité lii suma mbokk yi wax muy maire yi doy na mënuma wax mënuma wax lu ko dañu leen ci encouragé bu baax vraiment di leen wax rek nous sommes avec vous parce que xam nañ nous yéen bu ñu leen développement de nos loolu moo tax nous vous encourageons à aller de l'avant à a jël ay initiative gën organiser wu li ci soutien bi et nous sommes à vos côtés nous n'hésiterons pas à vous accompagner à vous soutenir pour ngeen réussir asalaamaaleykum li nga xam ne moo nekk ci biir léegi nag ñun ñu idée de projet yaakaar ne am nañ projet on a tout simplement l'idée de projet maintenant l'idée de projet et la gestion de ce projet est différente idée de projet man suis ma amee xaalis dinaa defar dara c'est ça l'idée maintenant comment faire pour jëmmal loolu noonu c'est la gestion du projet et ce que nag mooy ñëw dans le mot entreprendre entreprendre da ngay mettre un moyen humain ak ay moyens financier, et un moyens aussi matériel, pour que li nga am mais ça doit passer tout d'abord Il faut un sur le développement personnel parce que quand na ñu je suis surtout je suis féministe mais ça doit passer par l'incarnation Je dafa war a am lu la connaissance de soi xam yow jigéen yow yaay kan parce que Jigen, vous vous dites entrepreneuriat féminin madame la création et le développement d'une entreprise par des femmes madame créer dara développer tout c'est ça l'entrepreneuriat féminin Il y a des idées qui sont ne mais yow saa su nekk yaa xaar malheureusement lool moo ñu xaw a retardé l'Afrique l'Africain ñu dépendons trop des autres on attend toujours chaque jour dañuy xaar chaque jour dañuy xaar anglais bi day naan tomorrow is another day suba beneen bis la tey ngay jéem teg boo échoué nga defaat boo échouaatee nga defaat li nga defar nii

detetive, detetive. Detetive, detetive.